waay waaw booy lay siicu rek booy sama xale bi laay xaar nee na mi ngi ci buntu kër gi da doon make up xale bi rek ngay xaar moo tax ngay siicu nii waay damay siicu ba yaa siicu waaw booy lii Eh? Aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Pourquoi comment faut-il Mais ça faut toogal. ay bébé lii daa xew gisoon daa rafet.